aca final fii ci kawoon lambu Limthio production samedi 24 juin numéro 2 jël na tànk Seul bu ndaw eh, Seul bu ndaw door ko tànk ñu wër taxawaat waaw waaw di jaar mbokk internet Général eh, bu ndaw Seul bu ndaw am na ngemb Cheikh Tidiane am na ngemb sunu grand Ibrahima Djibi la muy sowal borom jaaro duñ la duñ la fàtte sunu grand le sergent Serigne Cheikh Ndiaye borom saka turum ndeysaan duñ la fàtte kaw fay jaga la saltige depuis Mbour Moudou Sarr le Isma Diop Sandiara Cheikh Diouf Fissel taalibe Baye Karim Diegane Diouf wala Diegane Faye yee sañoon nee naa leen 87 mille abonnés ñaa seen li may ñenn ñi ñenn ñoo baale ñeneen ñi ndeysaan kontaan nañ ci bu baax a baax a baax aca final baa ngi noonu sël bu ndaw Cheikh Tidiane numéro 2 fii ci kawoon samedi 24 juin 2023 ginnaaw bu ñu demee pause ñëwaat waaw waaw avertissement amagul dara amagul Seul bu ndaw bu daan Turbo bu Tivaouane demi-finale Cheikh Tidiane Roxon Farabougou la daan demi-finale 100 pour 100 Farabougou la woon waaye moo fi daan kam la mooy bandi 40 ci quart de finale yi ñoom Cheikh Tidiane numéro 2 bu ndaw génne Batista numéro 2 ci quart de par point ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಮುರ್ಗು ಮುಫಿ ಒಂದೇ ಸಾನ್ ಫಿಸ್ತ ಬಡ್ಡಿ ಮುಫಿ ಒನ್ ಬಡ್ಡಿ bisa ಕೋಡೆ ಬಿಸಾನ್ tidak ಒನ್ ಬಿಸಾನ್ ಬಿಜಾನ್ ಮೊಹೊ final bagi lu pada empat dapat di sel aku buka ya aku sama dapat dinamiti su ma bu ko wéeree poids bi day toog ndeysaan Jura Sall borom Sall Ngari production borom faram bu ma la fàtte waaw waaw am sàn doomu nay jibi jub yaram ñu waa Sall Ngari production la waaw waaw Joe production moo fi woote woon kawoon mise un million de francs CFA ndeysaan bayam lu baabu seen la ñuy dégg noonu final ba métti na bëri nañu premier round ñëwaat ñoom ci deuxième round ba dara xewagul ñoom ñaar ku ne am na ngem jël bu ndaw ndeysaan nee naa leen combat bi yoon naanaan la professeur la moom sël bu ndaw sël bu ndaw moo ko mujjee daane ci lan তারা না Thank you. waaw ginnaaw bu ñu demee pause ñaari yoon. delluwaat nañ ci même action ba. delluwaat nañ ci action ba. bu léegi jàpp ngeen mu taxaw. waaw seen Thia numéro 2 bu ak Sélé bu ndaw final. Lambu Lil Diop production ak ak kawoon. 23 juin 2023 waaw waaw il fait 3 heures 40 minutes songole sel bu ndaw loolu mooy forum mais Cheikh Tidiane dafa diis ndeysaan mu soobale ko du yomb wax naa ko waxaat ko waaw waaw tànn naa ak sama plusieurs fois ndeysaan amul lu mu bëgg ndax du jéemaat leneen wala loolu la bëgg a jeexalee lamb ndax du ci am problème bi action boo tànn tànnewaat ko adversaire bu la nandee mën na mën na ko bàyyi ba muy yëkkati mu wéer ba poids bi waaw waaw adi daa ngay wax ak ñoom bëri leen si daa bi bëri bu ci waaye mën na xam daal lay ndaanaan lañ sànq lañ c'était 38 heures waaw waaw su nekk ni ñoom ñaar ñoo des koy puus mun na ko moom Sele bu Ndaw li muy bëre dafa bëri am na compétition ndeysaan bu gisee combat yi fi bëre combat yu métti la ay tër bi la fi bëre ne leen compétir yéen bëri waaw tas yaakaar ñoom lay bëgg a grand champion yaakaar dañoo jëloon licence am Dakar waaye boobu ba tey waxuñ ko dara dem na fa CNG waxuñ ko dara convoqué ko dara boobu ak léegi-léegi bu def un mois waaw ko ajee ko li ko ajee bu fekkee da nga ko aj ko bu ko wax ko mais mënoo téye licence su jàmbur depuis lors yëttoo woo ko te mu a bëre boo ko convoqué bu dee koy teg ay sanction nga ko sanction temps ba jeex na lambu ja jeex na de lu arbitre di wax arbitre baa ngi concerté wu ak ay sixième temps ba jeex na ñaari mbër yaa ngi noonu ndeysaan victoire de Seul bu ndaw su Cheikh ja numéro 2 bu Farabougou Cheikh bu ndaw jël na lamb ji ci kaw Cheikh Tidiane numéro 2 bu Farabougou sama gars yi loolu la leen indiloon ci kawoon samedi 24 juin 2023 production Seul bu ndaw vainqueur sur Cheikh Tidiane numéro 2 Farabougou